Tchad la fa xew mat na sëkk ñu taxaw ci seetlu mhm. li xew Tchad pour information ñu ko amul mooy Idriss Déby moo fa nekkoon mhm. dem ba faatu mhm. bi mu faatoo ñu jël euh, doomam doomam indi ko Mouhamad Idriss Déby tax Idriss Déby sax dèjà ni mu faatoo moo njëkk a luus ba léegi dara leeru ci dégg nga ñu jëkk-jëkk indi doom ji fal ko par décret ne na fa toog résoudre résoudre euh, règlement yi nga xam ne dafa waxoon ni ñu waroon a euh, euh, doxale ak résoudre assemblée bi. Uh-huh. nekk fa di buur de bi ak Sénat ba ak lépp. parce que président Sénat moo ko remplacé bi mu ko defee uh-huh. ba bi mu waroon a jeex la 20 octobre bi. Uh-huh. ñi daal ne dañ ciy dolliwaat yeneen ñaari at. léegi nag foofu question bi ngay laaj mooy lan moo taxoon kon CEDEAO di embargo Mali. waaw problème mu temps dañ ne woon temps bii ngeen bëgg a jël pour toog fi ba. Euh, tant de temps de mois ngeen def élection yi loolu arrangé wuñu duñ ko nangu. Mhm. daal di Mali dégg te loolu dafa yàgg ci ci ci ci ci ci ci ci euh, euh, Afrique ñuy def ay affaires yoo xam ne ay contradiction la. Mhm. dégg nga te loolu lépp tubaab yi ñooy nekk ci ginnaaw tey jii boo xoolee Mohamed Morsi bu am bu bu Égypte. Mhm. lii booy bi def lu ko xaw a jege la def ñu dissoudre nguuram te pourtant démocratiquement la fa loowoon léegi booy bi tëj na rey na lu ëpp pris de cent personnes daanaka wala ay cinquantaine de ah, personnes rey na ko ah, ba pare fan yëpp mi ngi dugg ci kër yi di loqarte nit ñi di jàpp mhm. di tëj ay autorité yu dul jeex yu bari ak ay nit ay ay xale ba pare gisuma sax man président Macky Sall su fekkee def na ko yëgaguma ko mooy defu tweet sax pour ñaawlu ñaawlu en tant que président kon day mel ne kon day mel ne kon li xew Guinée tubaab yi ànd ànduñu ci baaxut li xew Mali tubaab yi ànd ànduñu ci baaxul waaye li xew Burkina li xew li xew li xew euh, Tchad euh, su fekkente ne moo gën a ñàng fuuf li xew Mali te tubaab bi ànd ci baax na kon day mel ne ñun amuñu ay loi yu ñuy topp ak luñ toppul mais lu tubaab yi bëgg moo baax lu tubaab bi bañ baaxul te pourtant mooy contraire u Mali Mali la fa Assimi Goïta di def waa population Mali ñoo ko ñoo ko ca ànd te yaakaar naa ne bu fekkente ne affaire Euh, waxtaan ba déggooloon xaw ma nu ñu koy waxeeti euh, consensus la ñuy wax mhm. defe naa ne Mali la gën a consensus bu gën a am tréwut ah, CEDEAO nanguwul consensus boobu Mali def te pourtant Tchad ñoom li ñu bëgg a teg mooy consensus bi yëpp li ñu bëgg a wax mooy euh, ca deux ans yi ñu bëgg a teg ñoom dañu bëgg a wax ne consensus la te consensus boo xam ne da nga koo bëgg a signé tey population bi jóg di révolté ci sa kaw loolu du consensus mhm. ay deal la maanaam waxtaane wuñ waaw mhm. waaw mais est-ce que nekkul bu ñu amee fit France moo tax parce que bi bu déjà li xew Tchad moom moo gën a ñaaw parce que Mali. Hmm. rey ñu président Guinée rey ñu président doon def coup d'état bu simple waa ji dem. Hmm. ci njëkk ak teranga réew ma tàkkul deful dara mais fii ab président moo faatu amul enquête bu wax ni dañ kaa faat wala. dara dara leeru wala bal perdu moo dal ci kawam doom ji ñëw toog yor nguur ga. mais danoo gis ni bi mu faloo rek France daa ñëw taxaw. Emmanuel Macron dina la jàppale. légitimité may may légitimité nguuram googu. waaw te loolu du woon est-ce que nekkul ne France googu moo tax mu am sañ-sañu moom di def li muy def te adduna bi kenn ñemewul kaas ni waaw li muy def du dëgg li muy def du dëkk te man am na ci yu bare bëri yoo xam ne su temps bi mayee woon ci beneen yoon ñu jàngat ko mm-hmm. parce que man problème rébellion beeg déstabiliser gi nga xamante ne Burkina tey état amu fa Tchad état amu fa Mali Tchad état amu fa euh, Guinée euh, Conakry gi état amu fa mm-hmm. euh, mën ngaa wax ne kon Sénégal li ko wër lépp tey amul amul benn dëkk boo xam ne état am na te loolu ñoom ñëpp ay ay dëkku lañ te ay rébellion ñi nga fa ñi nga fa di ko lëmbee. Mm-hmm. dégg yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ay buntu la yoo xam ne bu ko temps maye woon nañ koy toog ñu toj ko par benn mais daal en a cas li ci mooy ñaawlu ko ak di xaar CEDEAO ba xam na léegi maanaam cinquantaine de personnes yi dee ban acte lañ ciy posé ñu xanaa ñi dee moom du ñu ay weñ mm-hmm. voilà